lanu koy doore moo nekk euh, info mercato bi nga xam ni euh, njënd mbeeg njaay mi takkar naa seen na jamono ji euh, may wax yow dinañ dem France dem fële nga xam ne mooy Espagne ndax Rafinha Rafinha am na tuuti changement ci digganteem ak goney Barcelone ak ka nga xam ne mooy Sampoli ah, mook Marseille tamit dinañ ci ñëw André Onana ci Italie moom it dinañ ci ñëw ak Barça mi nga xam ni ah, ña ngay noyyiwaat bu baax a baax ginnaaw ba nga xamee ni ah, fii may wax ak yow xaalis bu bari dugg na ci seen i kees ginnaaw ba nga xamee ni bàkk bi jub na ñu door ñëw ci info transfert yi. Barcelone lañ koy doore mom mi nga xam ne 207 millions d'euros euh, def nañ ko ci ay keesam nga xam ne fi mu toll nii euh, su bëggee jënd day jënd ba doyal surtout euh, ki nga xam ne mooy Rafinha mi nga xam ne daanaka déggoo nan war am na ci digganteem ak ñi ko doon waxaale léegi Barcelone daanaka moom la choisir juróom benn fukki millions d'euros moom Rafinha accord bi nga xam ne moom lañ am moom digganteem ak gone Barcelone yi accord boobee loola desul lu dul maanaam fii ak ay fan wala fii ak ay waxtu yu néew loolee ñu man ko dogal ak nga xam ne mooy Neymar mi nga xam ne moom it Barcelone fii may wax ak yow ah, ginnaaw ba nga xamee ne 207 millions d'euros tege na ci maanaam ay loxoom ak dayong ma nga xam ne bu nu ko jaayee 85 ah, millions d'euros boo ko boolee ah, presque cent millions d'euros day dugg ci ay gafaka limaalewu ma ña nga xam ni ñoo ay ñoom umtiteeg ñooñu nga xam ne daanaka ay suyéri Barcelone la yoo xam ne seen i bañ ñi ngi yàng kon Neymar moomee bu lépp sottee lépp du tolloo papam déggoo gone Barcelone yi moom mooy dina mën a football fële ca Barcelone André Onana Mm, moom itali lay football euh, ginnaaw ba nga xam ne ma nga nekkoon ca Ajax euh, dem fa Ligue des Champions demi-finale def fa ay tojaange yoo xam ne ci lépp loo xam ne euh, lu positif la moom moomee jóge na fa fi mu toll nii Inter moom doomu Cameroun bi fa la atterrir Inter de goo xam ne moom Italie xam na ko bu baax a baax te it footballu Italie ak climat ba moom doomu Cameroun bi loolee jaaxalu ko waaye ki dara jaaxalul mooy doomu Sénégal bi nga xam ne jóge na ca Metz ga nga xam ne ka ko jëndoon mooy Tottenham daal di koy abaloon Metz abal ab dell delloo delloon nañ ko ñoom waa Tottenham ni nga xam ne fi ñu ni ñoo war a jël euh, presque meilleur jeune joueur africain bi nga xam ni foofu lay football nga xam ne bokk na ci euh, fukki joueurs yi nga xam ne moom lañ tànn ci footballkat yi nga xam ne ñoo nekk ay xale yuy door a toj ci nen te gën a xarañ ci euh, Afrique gi yëpp moom ma nga ca loolee euh, dina ko booleeg dem ca Tottenham goo xam ne digg militaire ba du ma ni dafay nekk partant waaye dana fa war a mën a doxal loo xam ne dina dal xelum ña nga xam ni ñoo nekk ca Tottenham ba bu boobaa ñu mën ko gën a joxaat gëddaam gëddaam boo xam ne da ko yóbbu fu sore sori beneen bi la ca des mooy ah, ka nga xam ne mooy Mamadou Moussa Sissoko mi nga xam ne ah, jamono ji may wax ak yow 17 lay sol fële nga xam ne mooy FC Nantes nga xam ne ma nga ca Ligue 1 française nga xam ne moom Sissoko moom nga xam ne ah, daanaka Europe gi yëpp wër na ko ci wàllu football te am na xam-xam boo xam ne ci digg militaire donte doole jam nekkoon nekkutu ci waaye nag xam-xam ba dina baax ci suyeer yi nga xam ni ñoo ànd ak waa Nantes ak Galtier mi nga xam ne mook Paris Saint-Germain jeex na tàkk entraîneur Paris Saint-Germain ba pour ñu officiel ko ci kanam tuuti la Pochettino mi nga xam ne moom it euh, dàq gañu ko dàq loola si signé a kayit rek moo ci des peut-être wala bokk moom daa nekkoon vacances bu leen fàtte tamit euh, abonnement yi yeneen xibaar dina ñëwaat ci kanam tuuti